asalaamaaleykum Sénégal man la wuli wuli waat dama maa ngi wax mbir yëpp nañu abone ci wasaare lam parce que wasaare lam am na solo jël lam boo wasaare ko. ci réew ak bitim réew waa li neexu ci sarax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa waa sunu làmb ña amal hommage bu yaatu jagleel ko Pape Dia moom Pape Dia ma fi nekkoon manageru Bombardier doon magam doon bras droit am doon léppam keroog dimanche la génn àdduna démb lañ ko jébbal boroomam foofee ca Touba sunu làmb daa xëy fësal ay nataalam ca xët wu mujj wa ba noppi toftal ca cratère de Touba Luis Waleser rax ca dolli ne Bombardier ñàkk na waaye ak lu làmb gépp ñàkk képp ku doon riisoog moom ci nga ca moom lu rafet muy mbër di manager ba noppi séedeel ko ay jikko yu rafet ak xol bu man Bombardier ma takk ngeen bu dugg ci biir làmb gestu sama ginnaaw gisuma Pape Dia bu dee Pape si la may président Mbour Bombardier la mu xamle mooy kii daal amul kenn ku ko mën a moom lépp écurie bi moom la woon loolee mooy témoignage yi yenn ci ay jegeñaaleem yëkkati Pape ja dem na mbuur jooy nanu ko axlu lamb jooy nanu ko manager jooy nanu ko leen ca des mooy ñaan yàlla jéggal ko te suufu Touba oyof ci kawam la narta oyof narta yomb mooy diggante Mama ak Jokkel journal ba xam ne lamb ja ñu ngi ko jàpp le premier décembre waaye face à bu njëkk ba niki talaata ji la ca 2 la Mama ak Jokkel fas yéene daje seen daje bu njëkk Mama bu Lansar ak Jokkel bu Kër Massar mbooloo la wax fësal tafaatin le géant di bawol boroom reefaan bëgguñu ko ren soxla wuñu ko ren duñu bëreek moom ren combat bi ñor xomm nekk ci xelu amateur yépp mooy diggante Modou Lo Ama Baldé te ñépp xam nañ ne Luc Nicolaï Modou mooy mbërëm gannaaw fay na Modou kase bu baax nag nañu fay kase bu baax ñu bëre combat ba journal barax ca doole ne ci ay rumeur daa dégg nañ ne Aziz Ndiaye moo ne Ama na lànk ba tëdd ca ñag ba te xaar dëgëral ndax danañ ko fay ko jar dafa naar ne mukk loolu kenn tooñ Aziz kenn tuumal Aziz Ndiaye mu def mooy conseiller moom la mu wax Ama Baldé mooy jëlal combat bi ndax kase bi baax na journal moom Modou dafa mujjoon a wàññi kaseem ngir Pape gën a nekk à ba mën a taxawal bile combat beneen sacrifice ba mu ngi ko defee woon en 2015 digganteem ak Bombardier boobee yi dafa wàññi woon kaseem ngir combat ba yomb est bii combat Modou dana wàññi kaseem ngir jàkkaarloog Ama Baldé ma ne laaj nag Modou Lo képp ca mën a tontu ka tontu ca digganteem ak Gris Bordeaux mooy Lac de Guiers ba léegi maa ngi dégg ñuy ma gisee promoteur bu koy taxawal dana ko jël te du ma ci xalaat benn yoon si on me donne l'avance de Gris Bordeaux je vais prendre sans réfléchir combat boobee bu taxawee dana nekk combat bu neex combat jànq ndax mbooleem nekk ci làmb ji meenam Gris Bordeaux laa ci laalee lëgul sama diggante Gris promoteur bu ko soxla dikkal doo ci am lu la metti ka fas yéenee dikk wanewaat boppam ci lutte simple bi mooy Alpha Samb moom promoteuru lutte sans frappe bii nii nee na am na lu nekk sama xel te damaa bëgg ñëw ci saison bi wanewaat sama bopp man Alpha production li nekk ci sama xel ren mooy ma ñëw teg 10 millions fa ñuy mooy ca am di moom la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 Ndiouga kebe xam nga jili jili Kébé ñaara ko daab tur wi day na jili mbay san bëree Ndiouga Kébé ñaar ñi ko seex jili Kébé ak sëñ Basiru waaye lii neexul ci tur yu mag tur yu mag yi waaye neexul ci jili Kébé sëñ Basiru waaye ak jili Kébé sëñ Basiru Diouf waaye lii neexul ci ñaari tur yu mag yi ci Wassare Lamb revue de presse bu neex mereef bu neex ku bëgg a gis leer caméra yi nag jógewul Sénégal États-Unis d'Amérique la jógee set huit leer li lii neexut wasaare lam wasare